président Pastef maa Nuiou, lay Ousmane Sonko maa Nuiou, nuyu ami Khalifa Sall maa Nuiou, nuyu ma sœur nuyu monsieur le ministre d'État Habib Si, tous les responsables du podium maa ngi nii wàccee aéroport de douze de vol waaye dama ne woon ñu invité ma ma ñëw bu ñu ma invité it ma ñëw d'abord d'abord pour Askan Wi remercier leen ndax bi président Macky Sall yónnee ne nañu foqati suma mandat Yewwi Askan Wi dafa bañ voter contre le kidnapping de mon mandat kon loolu bu ngeen wootee tey war naa ñëw ba fii gërëm leen sant leen ndax ci combat war mooy boo taxawee di combat ma ne ci wetam ñun loolu la xam

Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, Me fais la phrase bi nga xam il y a 12 ans que vous, président Abdoulaye Wade nga monsieur le président Macky Sall defaraatal sa monsieur le président bul topp ñi nga xam ne waxte fi tangé ñoy tàngee a daw loolu nga waxone ya 10 ans kon tay man mom la lay wax aujourd'hui li nga xamné nak moy taxaway bi wara am moy l'ensemble des démocrates Té defe am na waxtaan woo xam ne vraiment sous la maestria de monsieur le ministre d'État Habib Sy and ko ak tous les responsables yi tok fi nous parlons nous tous les démocrates ndax vraiment constitution bi nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Quand le président Macky Sall li war li war des élections libres inclusives nga jël vraiment lépp teg ci suuf lii sa warugal mooy nga préparer élections yi des élections libres où tout le monde participera nga bàyyi xoxatal bi aussi nga bàyyi aussi xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi maa ngi nuyu l'honorable député Guy Marius Sagna mi nga xam aussi ci assemblée nationale vraiment jàmbaar la fa kon looloo doon kaddu yi voilà di leen nuyu di leen gërëm ak votre permission nag comme le vol était long ba mën a dal di yeweeku maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.